waaw ça va grand noo def maa ngi fi ça va yaa ngi si jàmm bu baax a baax sant yàlla en fait dama demoon Fuuta jëndoon ay xar yu bëree bëri léegi ma romb ci koñ bi gis la ne pourquoi pas ma jox la ci benn euh, soxna si bu fekkee ni da ngay caaxaan wala da ngaa bëgg koo koo konteer wala koo caaxaanal euh, yoon bi mën naa kii nga bàyyi ma dem dox sama soxla dégg nga <laughs> même pas kookali sax man da chaque année noonu laay def damay may ay xar xaru lan xaru tabaski waaye soxna si néew da ngay caaxaan soxna si ak sa diggante gaal nag maa nar a may xaru tabaski man soxna si yow baax nga de dama waaye bu la neexoon nga ne doo may xar bu la neexoon nga ne am na ñu ko gën a yellool wala bu la neexoon nga ne gis nga ma sañ-sañ naa ah, ah, ah, da ngay dem may ko keneen waaye da ngaa dajeeg man klaxonné ma ma taxaw nga ne damay may xar waaye yàlla na la yàlla fay sa xol amiin léegi da ngay yéeg nga ñëw ñu dem kër ga ma jox la waaw dinaa yéeg nga may ma xar mais nag nga xam ne may nga xar ku euh, ku jara may xar bi lay kontaan àdduna amul Bilay bilaay Sénégal ñu baax a ngi baax. bilaay waaye ñu bon a ngi bon ñu bon yàqal nañ ñu baax. mais kër gi baa soriwul. non non soriwul ci kanam rek la. ma dawalal. non non ma dawal. bilaay ñu baax a ngi bu la neexoon nga bañ maa may. mais nag maa may yéen ñiy joué woon si bet mën ngeen jouer ak sama code promo 21F saa boo jouer mën nga am bonus 156 000 francs CFA lien bi mi ngi ci commentaire merci. xaaral ma may la ndox nga naan. merci waay. Eh, dégg nga moom day de. non t'inquiète xam nga xar laa la waxoon. waaw léegi dañ koy def xar plus. xar plus. loolu moom nar naa neex de. yow xaaral rek ma simmeeku ñëw di wax ci loolu. ki axaraan. xaaral bi ñu waay. Lilis. lii mooy liggéeyu nday. moo toog jaaxle ko. liggéenti xar ba sonn mu maa fexe ba am ko ma ñëw daje tey benn xale bu jigéen bu baax. mu ne def may may xar teg ci pays kay maa ngi a tëdd <laughs> xar bi. bàyyi ñu njëkkee xar bi. <laughs> waaw ñu kilis mën a def fële bàyyi ñu xar bi ba pare rek. Eh. waaw. <laughs> indi xar bi. bali la wala. laadu.